pas. Euh, c'est le candidat certes de Benno mais il doit être il est le candidat de l'APR avant tout. Mm-hmm. Euh, est-ce que mën nga gën a développer foofu noonu parce que coow loolu tam juddu woon na fi ay jamono ah. APR Benno ñii lii ñii la. Euh, je pense que kuy dimbali président de la République Macky Sall. koy mm-hmm. dimbali ci politique am moom option bi mu jël. c'est quoi mooy de fonctionner avec le Benno Bokk Yaakaar soo gisee charte bi nga xamante ni moom la ñu wax ni le candidat war na ci war na ci basé wu pour doxal. c'est en bonne place le gagner ensemble et le gouverner ensemble. et ça ñun je pense que depuis que ñuy fonctionner noonu la ñuy mm-hmm. noonu la ñuy fonctionner mais quand je dis parce que que ni moom c'est d'abord euh, parce qu'il est de l'APR on aurait pu choisir un candidat qui est du Parti socialiste ouais, de l'AFP bu boobaa la preuve démb maam a vu waa Parti ko taxawoo ci euh, au niveau de la réunion régionale bu doon mm-hmm. Augustin moom moo ko jiite taxaw boobu du am donc nit ku ne dafa mm-hmm. a jege Amadou Ba nag il est membre de l'APR moi je fais partie de ceux qui considèrent effectivement que képp koo xamante ni ci suñu biir parti bokk nga ci am ci taxawaay am ci rôle booy joué ñun ñëpp dañu war a ànd. mais pourtant comme bizarrement ñi ko nanguwul ñëpp ñu si ëpp affaire lañ bokk. waa xam nga loolu mooy euh, <laughs> con con euh, paradoxe bi. moi je pense que sur le choix. Mm-hmm. du candidat Amadou Ba. il faut décadrer que les gens comprennent. Mm-hmm. man li ma yàgg a wax mooy président Macky Sall tànnul le président Macky Sall n'a pas choisi man loolu mooy sama. sama position. tànnul ndaxte gis nga nit booy tànn bu fekkee mooy booy booy tànn mooy dangay am faculté jël ki la neex mhm. faculté jël ki la neex tey Macky Sall ak nit ku mënti doon parce que nit nit la soo sañoon foo toog am fa teranga am fa responsabilité soo jógee sa doom ngay teg mhm. bu doon day tànn day tànn doomam wala mu tànn rakkam wala mu tànn xaritam ku sori ci xolam tey jii il faut que les gens reconnaissent que tegul Amadou Ba teg Abdoulaye Daouda teg Aly Ngouille teg Moustapha Diop teg Mame teg Boun Abdallah ni kii moom a gënal il n'a pas fait ça il a fait une combinaison de facteurs yoo xam ne c'est des facteurs scientifiques kan moo ëpp chance sénégalais yi seen perception ci candidat bi lan la mhm. pas lui personnellement moom moo il s'est mis à la place des sénégalais de l'électeur à la place des sénégalais il a fait faire également ah ay combinaison de facteurs yoo xam ne c'est des facteurs objectifs ah, laajte na de gauche à droite natt na yëf yi ba xam nit ñëpp dañ ko dañu njort loolu war na ko def parce que mm-hmm. mënul ñàkk mm-hmm. mais je pense comme il avait dit bu fekkee sondage rek ak laaj nit ñi influence mën naa dee rek dem ci presse mm-hmm. bind la influence mën naa am mais je pense que c'est de manière scientifique y a beaucoup de gens qui ont reproché au président tant il est devenu inaccessible et c'était normal ci période boobu parce que kilifa nit nit la rek nit ku la wër mën na la mën na la mën na la influencer donc tegul tegul nit ñi ni kii mooy ki ma gënal. Mhm. waaye dafa def combinaison de ces facteurs là ni pour ñun ñu am meilleure chance pour se maintenir au pouvoir. ci Amadou Ba la tombé. Mhm. et ça vraiment ñun ñëpp nangul nañ ko ko maintenant comme je dis euh, gis nga religion ak politique dafa am lu ñu xaw a lu ñu xaw a niroo. Mhm. Euh, en religion boo xësee ba gëm nit ki. am na ñoo xamante ni gis nga seen sëriñ bi dañ ko gëm rek lu mu xam ak lu mu jàng ak. ça ne les intéresse pas ils veulent juste s'identifier important en politique qu'on s'identifie en je donne bon c'est une digression peut-être. Mm -hmm. nous ay ay jullit la ñu ñun fi ñu bokk ci tarixa bi tijaan. Mhm. tarixa tijaan sooy weer da ngay suba laazim ngoon ngoon gi nga wasi nga wasifa wala suba gi mais Cheikh Seydi Hadji Malick ku aju ci moom da ngay laazim suba laazim ngoon fa ñaari yoon. Mhm. mais tey amoo droit. ni parce que man tijaan laa rek fu ma lu ma neex laay def non mhm. tey boo deful comme moom ni mu ko bëggee mooy kër yaa ngi écart yaa ngi koy yaa ngi koy sot donc ñun aussi Macky woowu ñu ni ñu kaay ma nekk seen mentor ñun ñoo ko choisir comme ça on y ku su nekk am na sa histoire bu tax nga dem ba ba dénk ko la donc loolu nag la conséquence mooy que ni am na looy bàyyi ci yow dénk ko ko au moment où je vous parle pour man et c'est pas encore tard xëy na parrainage bi commencé na et tout mm-hmm. moi je pense que le grand chantier que nous avons c'est que ñooñu ñëpp def ay dissidence ñu fexe ba indiwaat leen xëy na du yomb mm-hmm. mais war na mën a ne les gens me disent pourquoi atteindre ñu point de non retour moi je me dis que y' a. quelque parce que commencé naa ñaaw ah bu ma commencé naa ñaaw mooy ce qui s' est passé à par exemple avec Mame Boye mhm. on l' a limogé tout simplement. jox mhm. jox ko keneen koo xam ne c' est son mhm. concurrent dans dans la région. mais écoutez vous savez quand tu une posture de ministre. de directeur général politiquement daf lay dimbali. dimbali bi mooy lan mooy que ni nit politique aussi am na ñoo xam ne dañuy demee yaakaar effectivement man su ma amee un adversaire koo ni ci man la nekk politiquement am la possibilité d'aider quand je dis d'aider peut-être même des emplois et cetera na ko am ah nee nag kenn du dooleel ki nga xamante nii dafa nekk sa adversaire loolu ñaawul mm-hmm. ñaawul je pense que c'est c'est c'est yëfu yëfu nit rek yëfu nit la bu fekkente ni am na ku jóge ci place bi il faut am ku foofu mais aussi am na ci euh, mam booy exemple la ci Aly Ngouille Ndiaye aussi parce que ñoom jamono ji seen discours dafa xaw a varié boo seetloo ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye maanaam dama utiliser mukk moyen état pour écarter un adversaire il il il critique un peu li nga xam ne ñoom ci lañ ci lañ bokk. mais je laisse les apprécier, effectivement ni nga ko waxee. Mhm. je pense que quelle que puisse être euh, sa posture. nga nekkoon fenn jóge fa am na loo xamante ni boo ko waxee bu yanuwul maanaa rek ñun du jar sax ñun ñuy toll. Mhm. sénégalais yi si boppam sénégalais même ñu naan waa kii comme on mhm. euh, de manière triviale kii kan la yam effectivement je pense que ku nekk am nga am nga am nga droit am am ambition. Mhm. mais euh, on me pose la question mais ñi lan la ñu war a mettre en avant pour bàyyi seen candidature pour mën a ñëw jàpp si bi nga xam ne moom le président Macky Sall jël ma leen la loyauté. Mm-hmm. moi je suis un administrateur civil et ce qu'on appelle la loyauté ci biir administration ak ci mm-hmm. ay relations c'est très important et je salue très franchement mm-hmm. euh, le, euh, le, euh, le grand frère Abdoulaye Daouda Diallo poursuidu gis nga moom quel quoi qu'on puisse dire tey bu taxawoon def ni ñeneen ñi def dina metti parce que APR dafa am ñoo xamante ni dañu am ay liens très profonds xam nga boo nekkee si opposition moyen amul jot am ngeen di ànd di attaayaandoo di toogandoo permanence pour dafa am un lien très fort boo xamante ni nii tey jii buñ ne kan la rek automatiquement sa xel dina am si ko mu dem. justement sax moom sax lañ doon ragal que day jël yoon boppam. parce que li nga wax ni fi ñu jaar tout ça. moi j'ai été le premier à dire Abdoulaye Daouda mi ñu xam ak digganteem ak makisal ak ñi nga xam ñoom dañ ko bokk yaakaar naa ni quelque puisse être la situation moom dina ranger ak aussi nit ki. ci boppam ak esprit ak xalaatam. la même a été pour moi mm-hmm. peut être ko gën ñi ma ko gën a xam. Mm-hmm. leneen la mais pour moi ça a été une surprise. moi je me disais que moi moi personnellement ça été une surprise pour moi mais pour man dara weesagul continue fu mu jaar ak Macky Sall ak yëpp. Mm-hmm. donc nit di nga dem ba benn instant sa bëgg-bëgg ak lu ñu am am xam-xam ak lu ñu am am jaar-jaar feneen premier ministre yàlla si Macky Sall la ko la ko la ko jaarale ah. je peux comprendre les gens me disent oui bi ko Wade kii moo ko defoon premier ma leen kii dañ ko dàqoon mhm. kii dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dindi ko fi mais ñii bokkul ñii dañoo nekk ci mbir mi euh, jusqu'au bout jusqu'à la jusqu'à la mhm. fin c'est pourquoi mu nekk une grande grosse surprise pour nous maintenant man euh, xeeb kenn du leen xeeb. xeebuñu leen Boun Abdallah wër na fi Sénégal ñaata yoon def ay élections il a été premier ministre. ku nekk premier ministre ñëpp dañu lay dañ lay soxla. xëy na il n'a pas une base. connu. et c'est quelqu'un aussi boo xam ne euh, ses prédictions comme prédication yëpp dañ ko dañ ko vérifier après maanaam pour dire que il connaît bien euh, l'affaire donc. est-ce que c'est pas une menace parce que était au cœur. exactement du dispositif. Ah. depuis un certain temps il n'est plus. au cœur du dispositif. Mm-hmm. et koo individuellement vraiment ay relation yu baax lañu am ak ñoom Aly Ngouille Ndiaye muy euh, Mamboy muy keneen ak keneen. Mm-hmm. mais dans cette affaire là mënuñu ànd ak ñoom ci li nga xam def nañ ko bien que ni. nee naa ku nekk am nga droit am sa ambition bopp mais la loyauté au président de la république qui vous a permis c'est vrai que yow aussi jàppale nga ko ci politique am et tout mm-hmm. mais bateau boo gis day am capitaine ki nga xam ne nag tey moo tax ñu lay wooyu ministre moo tax ñu lay wooyu premier moo tax nga am tout leur seul mérite par rapport aux autres yi nga xamante ni ñu taxaw tey mooy leur vécu gouvernemental parce que un mm-hmm. vécu gouvernemental daf lay jox beneen position par rapport quand même à une présidentielle. mais am ñoo xam ne am nañu légitimité boo xam ne du gouvernement moo leen ko jox ku ci mel ne euh, Aly Ngouille Ndiaye Aly Nguer il a sué pour nekk nekk maire. oui si c' Benno qui a porté. Mame Boye aussi à Kolda dafa dafa demoon. oui ñoom ñëpp ñoom ñëpp euh, quand même ils ont euh, une base. Mhm. très solide qui à Linguère qui à. euh, comment dirais-je. Kolda mm-hmm. mais c'est justement parce que ñoom amoon nañ cette base là et que l'addition de ces différentes bases moo waroon a constituer la force de Macky Sall mu amoon mm-hmm. la clairvoyance gis ci zone yooyu ñi nga xamante ni population yi jug nañ leen mu boole leen ci mbir mi. Mm-hmm. fekk aussi ñu am xam-xamu taxaw. maam mooy inspecteur des impôts la. waaw ay aussi ingénieur la. ku si nekk it fa nga jaar am na preuve yoo fa def. que ni mënoon nga di tax président de la république. jël la. mais mais daal jàpp nañ ñi jàpp uh-huh. nañ ñi par loyauté. waaw à une personne. parce que mm-hmm. comme j'ai dit dafa am lu ma xaw a niroo ak religion waru ñu woon a defee defee ñi nga xam noonu lañ def.